Père Ousmane maa ngi lay siyaar bu baax di la màgg. ndax nu kasaalika ñu ngi lay siyaaree bu baax di la màggal. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. tey fii ci ndogu ki nga xamante ne mooy Baye Mandione duñ la laaj loo fi def waaye bëggoon nañoo xam sa relation ak baay nu mu demee. noo laaj ci ba kër Baye Mandione lu ma fi def moom wax ju yàqu la wala ak relation ma si xam wax ju yàqu la ndax ñoo dëkk ñoo jëlloo kër sama kër gi nii ci ginnaaw ah, sama rakala sama xarit dañuy diisoo fu ñu toll dañuy déggante tout le temps man ak moom ah, te lii mu def nii du guleet lii même bu dul koor sax da koy def day jékki-jékki invité gars yi rey xar oo gars yi ñu noosu waxtaan loolu la yàlla jagleel moom ci ak mbërëm ci ak mbërëm mooy moom day joxe lekk moom barke sëñ Babacar Si waaw moo xam nag lim bëgg yàlla na ko sunu borom defal waaw. moom fi mu toll nii actuellement ci làmb taxawaayu Baye Mandione ci làmb ndax ñu ngi gis mu ngi bëre barki démb mu mujjee bëre xoyantaan mu nekk roi des arènes u Gambie mu jëlaat Zarko taxawaayu Baye Mandione ci làmb lan la. waaw daa dem defarwaat rek. xam nga ba mu defaree di ñëw fii ñu ni mbëru Gambie ak mbëru man ci laa xam ne day ilimi éliminer mbëru Gambie ndax kooku ñemewul woon bu ñeme woon koro dina taxaw xeex ak Baye Mandione ñu bari ñu ngi doon xalaat mu daan Baye Mandione wala mu baay ma Mandione ci xeex mais yàlla dogalul loolu mu éliminer kooku njox ko Zarko Zarko nag dafa yaakaar ni moo man wala moo dàq xeex wala moo dàq bëre mi ngi nax boppam Mandione tëddul di nelaw dafa am lu mu pertoon ci làmb moom la bëgg récupérer waat moo ko tax mu toll muy rey boppam mi ngi entraîné guddeeg bëccëg ku yaakaar ak daa tëdd nelaw da ngay nax sa bopp ñun ñi ko gis ñu ngi xam na ne mi ngi entraîné ma bëri woon ak Gris Bordeaux bëri woon ak ay champion ci làmb mun nañ koo gisaat bàyyi ma ñoon waaw mais pourquoi pas waruñu ko mën a gisaat parce que làmb day am ndog fii ku nekk am ndog ndogu làmb ñun ñëpp jaar na ci ndog ndogu làmb mais boo lëloo defaruwaat toppaat say tànki war naa mën a ñëwaat moom joon ba bëriwaat ak ñooñu ci lépp nag ci entrement moo ko may comme ni mu débuté entraînement nii noonu la bu ko continuer dina bëriwaat ak gars yi waaw. yow su ma la doon laaj sa carrière làmb ban combat moo la gën a marqué loo may wax. marqué ci lan ci neex. ban combat ngay sentir saa yoo ko xalaatee rek sa xol bi gën a féex. sama combat yi bari na. combat yi ma gën a santir mu neex bari na léeg-léeg gars yi dama sama combat ak Balla Gaye dafa neex mais sama combat ak Kati tamit dafa neex sama combat ak Super Jamono dafa neex da booba Super Jamono benn dafa lam yooyu yëpp combat yu ma neex la ndax booba dañoo xamul ki nii bëreel kan la waaw ma Balla Gaye daane ba pare booy ren maa jël dafa ne grand bi màgget na far yàlla ma yoxasu leen ñoom ñëpp waaw. yëkkatu boobu ci nga jeexalee sa génération. ci laa jeexalee ñëpp. te si laa fas yéene eh, eh, eh, juróomi combat yi ma a wala ñett ma jeexal ci quelque booy. saa yi boo doon maye sens da ngay maye sens wala da ngay bëre ak say samay morom bëgg naa xale yi bëgg naa. xale yi ñan nga jàpp ne war nga leen a mën a. siiw yi am doole yi naan ñii mënuñu leen a daan man ñooñu laay barke baa Babacar si ñun lay wër. ma booy yi bari nañ fi mënuma lim ñëpp. yoo xamante ne vraiment yaru nañ am nañ respect ci mbër mën nañoo bëree te mun nga leen a may. ma booy bi wala booy baa booy yi am doole te kenn yaakaar ne mënuñu leen a mag ñi mënuñu leen a daan man ñooñu lay wër ma jàngalalee leen bëre tuuti ci biir géew bi ndax yaakaar na ni mën na noo am na doole. déedéet dañuy nax seen bopp rek nan jàngiwaat bëri xale yu bëri dañ jàngi bëri am na ñu ma contact woon di ma wax ay combat mais dama jubaloog ñoom na wax fa dëgg yàlla nag tax waa ci prix rek baaxul mais man seeru ma man soo waxee man ci njëkk teraanga rek bu la ndax lu ma am lu ma am loolu ci làmb ba léegi dootuma ko am am déet waaw làmb am naa ci lu nekk lu nekk am naa ko kon su ma nekkaatee ci làmb nii di bëre booy ndaw yi rek damaa bëgg lamb rek espor laa bëgg moo tax waaw damay ñaanal nag sama xale caaro yi yàlla def leen ñu juboo gën a juboo nekk benn entraîné bëre daan ñibbi njoono Issa Pouyo rëg-rëgagoo ñoom ñëpp daal maa leen ñaanal ndax samay rakkalanu jaajëf xéewal Sam maa ngi lay ziar waa mais bëggee doom day ziar naa la santaat bu baax sax fekk la fi nga xamante ne mooy kër Baye Mandione mun nga maa wax relation ak mbëru caaro yi rawatina Baye Mandione lan la waaw euh, sant yàlla rek di leen ziar bu baax di leen nuyu waa Wassare aussi jili di rafetlu initiative bi vraiment di gërëm Baye Mandione ci lii mu def tey wax dëgg yàlla lii daal lu yàlla gërëm la vraiment tey mën naa ne ñi fi daje ñëpp ku ne am nga foo ndogo mais wax dëgg yàlla lii dafa rafet waaw dafa ay benn yu baax ñoo invité nit ñi presse bi yëpp ñëw tamit ñëw def seen liggéey ñu lu ko man nag sama diggante ak mbëru caare yi mën naa tey fii sama kër la nag njoon ñoo bokk benn papa mën naa ne waaw sama deret la tey ñii nga bëgg ñëpp muy njoon muy Koli muy pap benn deret la waaw yàlla na moo ma def promoteur rek mais wax dëgg yàlla li ñu nekk laa waroon ne sax ndax ñoo foondoo ñoo defandoo lépp ñoom ñuy booy wax dëgg yàlla tey ku ma gis fii maanaam sama wareef laa def daal wax dëgg yàlla. Ousmane Diop nee na moom ba léegi bëgg naa ñam ci xale yi kañ la ñuy xaar Sam Production jox Ousmane Diop avance fa yéene ko boole ak benn xale bu të. waaw mais mooy yoon parce que mu fi de te wax dëgg yàlla fu Issa ñëwaatee moom war na fee mën a ñëwaate wax dëgg yàlla booy war nañ koo mën a jël mu ñëwaat. yan booy nga gis ne war naa mën a laal. mais booy yaa fi wax dëgg booy yaa ngi fi rek booy yu aussi rek comme booy nu ko waxee booy yu aussi wu naw na boppam daal ba wax na ko dafa naa ne wax dëgg yàlla war naa mën a jël booy te wax dëgg yàlla caaro ñu koy xaar pour jàppale ko te instant yi moom bu amay combat moom gars yi nañ ci tax rek loolu moom leer na ma incha allah jaajëfaay